Salam euh, salaamaaleykum beaucoup internet Salam euh, salaamaaleykum euh, les amateurs Salam salaamaaleykum waa axlu lamb Salam salaamaaleykum waa CNG nous promoteurs yi bu baax di nuyu tout tous les amateurs di nous toutes les composantes aussi de la lutte ñi nga xamantene kurel yi ngank lamb yeb maa ngi leen di nuyu di len jaajëfal di len gërem di len jox ñëpp seen wàccuwaay acha di len wax nag njaakal euh, Albert bi TV de soit na ci cinquième numéro émission Njoktoor émission Njoktoor nag di am tous les lundis euh, à partir de 10 h fi ci Ndinaalane TV euh, ci micro bi Ndiak Albert la ci caméra bi n'ek, Midou Diouf ñu gën ko xam ci Mamadou Diouf Ndinaalane waaw tay nak sen émission Njoktoor la parce que ñun dañuy def bu lundi jotee ñu indé len li ngeen li nga xamante mo xew ci weekend passé bi ci lamb ji mooy dimanche bi euh, dimanche euh, bi passé nak ben lamb euh, mo ci amone fi ci Dakar Jax moo woote woon tegal mbëri deux millions lieu bi terrain gal bi la won ci animation ba ci way ba nekkoon Mbayang l'enfant chéri de Mbir Farba ci teguma nekkoon maman Ngom l'enfant de Gandiaye fils de Babou Ngom ben lamb ji nak franchement ñun d'après nos constats euh, gis nañu ci lenn loo xamante ne daal war nañ ko critiquer euh, en tout cas xam naa ne daal euh, guichet bi gars yi doon jaay gars yi doon jooy la semaine dernière mooy franchement teel na ubbi bi yoon parce que man trois heures fa la ma fekk xam naa ne avant trois heures et demie guichet bi gars yi commencé nañ di jaay billet donc kon guichet bi franchement cette fois-ci ça a ouvert un peu tôt waaw teel na ubbi amateurs yi ñëw nañu en masse organisation bi aussi franchement macha allah rafet na ala daw na buntu bi nga xamante ne aussi moom la gay doon jooy gars yi doon jooy semaine bale passé eh, muy bunt bële mbëri di dugg see eh, gars dañ ko tejoon bi mbëri duggee ba pare léegi dafa am amateur yoo xam dañu bëggoon a génn wala ay mbër yoo xam dañuy daan ba pare bëgg a génn pour dem eh, sumeeku ji ñu tej bunt boobu mais cette fois ci la porte ouverte donc chapeau parce que mën na wax ne donc message bi egg na waaw message bi egg na gars jot nañu ci

Euh, té mom sax euh, bokkuloon ci ñooñu euh, parce que toogoon na ci chaise mais dal néna dafa yërëm ñooñu ñu wo nak ñu ci wo promoteur yi c'est pas seulement le promoteur du jour qui qui nga xamante mo xewlon dimanche loolu ça concerne tous les promoteurs en général qui nga xamante ne am nañu terrain gal gi ça leur concerne tous ñom ñep la concerne franchement parce que bu des grands Yoff rare na pour nga gis amateur bu jënd bi ba par ñew taxaw rare na waxuma ne amul mais rare na donc euh, pourquoi pas aussi terrain galgé mon fait de telle sorte que promoteur bu fa teggate au moins même si dé ban traverser nga xamantene euh ban traverser la donne mu wuti ay quelques bancs, traverser wourale ko bu ko défé euh, les premiers amateurs ñi nga xamantene ñoy ñëk ñëw au moins ñu am fu ñu mëna mais aussi taxaw 3h30 21h 22h franchement maintenant waaw métti na loolu daal eh, bëggoon promoteur yi nga xamantene euh ki xewle won ak ñi nga xamantene sen lamb nek na ci ginnaaw ñu jëma soralé euh amateur yi waaw amateur aussi franchement toujours ñu ngi jooy le manque des champions li nga xamantene l'absence des champions l'absence des ténors te absence des ténors bi nak xamna né euh da ngeen patienter parce que gaay yi ngay jooy mais dafa mel ni dañoo xamul exactement né sen champion dañoo sommes engagés engagé un combat bëri Nous sommes engagés mënu combat bëri dóor ba bëri simple te accord promoteur donc il faut que patienter vous les amateurs Nous avons des champions l'absence des ténors de la lutte simple Nous avons crème de la lutte simple les ténors il faut que patienter parce que nous sommes bëri ci nous, donc euh, bu la promoteur bi euh, mayul autorisation pour nga dem bëri ji par exemple risque boobu boo ko boo ci amee blessure mën nga ci am ak euh, problème bi donc yéen téléspectateur rek amateurs yi ngeen déggee ko noonu seen champion ñu ci bëri dañu engagé bëri dóor dañu engagé ay combat boo mënoo engagé combat ba pare dem ci dem di bëri si par exemple te amoo accord bi sinon risque ngay risque ngay ngay ngay def risque ngay def donc gaa ngi jooy aussi te balance bi mais toujours la balance encore la balance encore la balance toujours la balance gaa ngi jooy balance bi balance bi euh, day indi handicap tuuti ci bëri simple ci Ndakaaru parce que bu dee àll ba amul problème parce que foofu amul balance te yaakaar naa ne bépp bépp mbër xam nga bépp mbër buy bëri xam nga sa catégorie ñi nga xamante ne ñooy bëri uppajël xam ñi ñun uppajël la ñuy bëri ñi nga xamanteni ne ñooy bëri raw gadu xam nañu ay mbëri raw du lañ ñi bëri poids léger xam ay mbëri poids léger lañ ñi nekk poids aussi xamnañ nañu ay mbëri poids la parce que mbëri poids du bàyyi poids lourd ñëw di bëre euh, poids léger donc fofu aussi franchement euh, CNG war na fa dawal compréhension li nak mom euh, wa am promoteur moom ñuko ko ko mom parce que CNG ñoo def sen règlement waaw CNG war nañu dawal compréhension te xamné lamb lamb la wala sinon règlement bi na doon na nekk ben parce que mon autorisé fi à Dakar la blanche ba pare te blanche bi amul au niveau national amul amul ci village et région yi te yaakaar naa règlement bi ben la règlement bi ben la war au niveau national au niveau national règlement bi ben la ben la ci donc tay buñu exiger blanche fi à Dakar war nañu exiger blanche au village voilà sinon ñu bàyyi blanche une bonne fois pour tout L'inscription des lutteurs L'inscription des lutteurs manam la limite des lutteurs à 64 amna am ñu déplorer amna ñu koy ça ne concerne pas les promoteurs, ça concerne le Saint-Gé aussi. Euh, la limite des litres, ben, bu njëkk amu fi woon mais dañoo jékki-jékki ne lamb yi léegi dañuy goudé, parce que amna, euh, monsieur me rappelle am na benn lamb bu amoon euh, stade euh, Demba Diop lamb boobu mu ngi tasoon presque au delà de de au delà de de de de de heures de minuit au delà de minuit donc loolu su fekkante ne loolu la ñuy bañ fii te nangu ko au village man je vois que euh, parce que gaa nag risques yi fii la ëppee risque d' agression yi fii la ëppee mais boo xoolee au village mag ñi yëpp mënatuñu seetaan lam parce que lam yi dañu guddee commencé ba pare presque ba balaa ñuy jeex presque bët set waaw te franchement am na mag ñoo xam ne bëgg nañu seetaan lamb bëgg nañu seetaan lamb mais mënatuñoo c' est dommage que ñoom mënatuñoo seetaan lamb parce que lamb yow mag. Euh, bu am ay 50 euh, ans jàpp 60 ans mono tok 17 ans lamb à partir de 23 trois heures et demie lamb boobu jëmal ko jëmal ko presque 4 heures du matin wala 4 heures et demie du matin et franchement loolu c'est déplorable te ñu né règlement bi ben la donc li ñuy def bi exiger fi la balance waro nañ def non bi exiger la balance au village euh, dans les régions au niveau national heure bi aussi heure bi waro nañ ko contrôler au niveau national waro nañu contrôler heure bi au niveau au niveau national parce que lamb mënul mënul tëgg fii à Dakar ba 24 euh, heures léegi lamb di commencé 24 quatre heures au village jëmale ko presque cinq heures du matin quatre heures du matin ça franchement c'est à revoir règlement bi war nañ ko war nañ ko xoolaat war nañ ko xoolaat lamb aussi day tëj fii au niveau de Dakar ba pare ñu dégg ay mbapat yi tëgg ci ci ci ci village yi loolu aussi franchement règlement bi je pense que euh, bu dee benn la aussi dana ma xaw a jaaxal est-ce que la lutte simple a son règlement son propre règlement c'est une question à se poser est-ce que la lutte simple a son propre règlement ben ñu dem ci njom ñal li nous di wax association bi ci dox le président du CNG en l'occurrence Birane Sen, moom wax ci ñu mais euh, man résoudre le problème le problème de leur tardive euh, des tournois waaw njom ñal moo parce que bu Eh, lamb nyam nyalek rek mu nyam nyalek ñaar mu amoon dañ gars yi dañ doon bëri ba ay midi une heure deux heures du matin deux heures ci bëccëg lamb ji tas gars yi ku nekk ñibbi fi nga dëkk waaw mais nag franchement eh, bu ñu bëggee lamb di teel a tas fii ba pare di guddee tas aussi village eh, da ngay day xaw a deewaar amna na benn année mbayang woy na fi terrain gaal lu lamb jeex mu dem woy nagaan te bi muy eggee nagaan fekkul lamb sa commencé donc kon franchement loolu moom xaw na xaw na xaw na war nañ ko xoolaat bu baax

bo abonné bo bëggee abonné vidéo bo abonné, ci lien bi s'abonner s'abonner cela veut abonné cloche bu à ta droite cloche de notification lañ ko cloche cela veut vidéo YouTube rek YouTube rek yow da nga jot donc neexal abonné abonné partager parce que franchement ñu dégtal leen quelques amateurs ngeen déglu seen réaction franchement Ndiak Albert la woon au micro de Mbine Yalane TV sur euh, émission. terrain gaal gi jak sa xoyit mene tegan pirke 2 millions no mbak na momo ngomane kima ka mbayang lum lampando mbin farba i soɓ meen koy amateur fa maak en même promoteur yaal mbin i mbaga an gon le fo me genoona saate fa fo ke waralna te wayof mene xaye Albert i simnang yo a paax simno mbindu fa neeke e mine Issa Diouf e gen Bambey fuli Ndiob ne xaye Ndiob ne faley lool Albert waaw e xa waru tewayof mene xaye mine anda ye ñoom rek i ñoowa in moom ñoom rek i mbuuda i moofanga dimanche i nge'e ñoom sax ka i njega problème mais Ndiob ne xane moom ah, a a fela fula de a fela fula waaw e, doon te i nge fula koy poids lourd ke meye ñoom ne a a fula daal xa ɗomu nuun no Ndiob ne xa ɗomu ten joɓne organisation ne xaye a mosa a xena e leŋ kut refte ka andoona yee xa yo ɗom teen te refte e, wiin weeke ndefna o ci'iñ laqa barrière ke e, jamano feleer to wiin we a mbara ɗetan moof gargeenu 5 heures bo 22 ka ɗom wax deg kene ñaaƴee ta jeg nana mbiyo den waay o pasanga 2000 gargeenu 5 bo 22 ka ɗoma kenn fele dar mom kene duma xam mom kene mom refe ka fele xam wax deug yalla i isa jim nga go isa jim baba djom to ren nga afle ran e hawarul kaka ou bien dat fexem bamina to gara no ren sax djegim dat ingi jejeg dat lam dat ke gawrna adversaire ngor te jongo dat na ando ne djeg ke o to jamon ne ndigi jare o yakate to njom ne xina o buge buge o rek mere fe kan cang khalis kay kay mbugno rek tafala in rek i ñowaten me refe ka andoona yee ka ci'a in xaalis ndiiki i saɗ ɗeɓa maaro weg yaam miir na yerna maaga ndiiki te Grand Yoff fo terrain gaagi mais est ce que nu ren xana jeg coob mayu ka yaquna terrain Grand Yoff yaam terrain gaagi e Albert kene layoona xaga felaam trop ga i saɗ ɗeɓa maar oxo retaam ma a gitaar a xata i mudoma a gitaar te i maaga i mudoma njam xar ambe gangano pour ño ño mo tamé begin? so ko ambe ambe amu amurata guitar la mata no ye etat iba mar ware weg mir nag gi na ma okino len kuta waga ne xeman ama ya, gangano xeman ci xno min apro ma tere tan xeman me ta kayo ta kayo ban ci no pare so koy e eh, ambe o ambe ma guitar ma don no ye kene tag be fen tale illa ka kene mir ga be yakan joma jagama est ce que ga aussi refe ministre anu nga ten ngayu Eh, tan marulu lu akena len jek mini fangas ne anga yanga to ande tata lamit winwe nana me bambe ko jom nayni jom so kay amet no pura guitar ambe nga fa bagin fop ala nga kay yen ambe gin no kurna pour wino kadi wino way ndewo mo ndikidi kon mare no banjo ma ndonu ne don we fen ya xato promoteur gena ngem bakta arena national to na bilan senala e arena national fantano leng xuxatna jega licence o refangaa bo exemple o garanga rax rabid ko arène nationale to promoteur ke naanga mbagta maaga xa waralu kaaga arène nationale o leŋ fañe fak ma ka pour o jegum a dab problème to ga koy amateur ño mbuuɓ neeke ah, a taxe ta année nationale soxla eerno a mbayu anda taxu ka goɗ ben ngor ke a mbudkangama bo ngata jeg ke ka jege mayu wa andoona ye way meeke ana mbud ko 100 francs o saqo fo paas den o fudangama bo gata ko jega problem. te taxu jega win mayu wa andoona amatir amateur mayu ka andoona yee sawre ya, mbut ko maga problème ne jega yo te tax a promoteur mayu ñom bu soxla yero maga ñom i jëm xale kan bi lan TV anum content na nun ndak ya mi yelan TV mi xey kam fe gaté xoxes fe defak dim ñom ne kam fu dum ñom ne mi ñaana nun jëm fa salam ya sam tayeku war wa tele ko ba content ina meke kalgi jaksahoyit man tagan pir ke 2 millions euh mayang lum fo mom nga refna animation ne isa soɓ men koy animateur fo maak yal mbin nam golle le mam gëna foko xa tawayef men xaye ya way na o siarango a ba euh ñoo ibugo gan mbarin na simnang fa o siarang a paax nam nam ga organisation o xaye organisation ne a a de abera normal i a ɓera ɗat moom normal i njafule te ka kaɗomna in daal oh, fuuɗa njom faak fuud njom xaye nam ga to njom na faak fo njom xaye koy a guutat lay mayu a wute ay mayu a wute ay pir a wute ay amateur ke i parce que pir fo pir faak ndero leŋ mbir a garoga no lang rek bala te fadida o ande mbir ne gara neexaano ga ngara bo lok kam wiin we to an bugiro i ka koy i manquer a miigu o feesa dan anga jom ngel 100 metre o ande o fees oxey gara nda ndiiki ga ngarka bo kam ngel ne to wagiro and ndax mbiro ndokiid yo wala mbir ndokiide wala te xooytiyo a soogo ande purke i ne ndiiki xa waralu kene parce que ne ndiiki jegatee charme :fra piir ke safatee piir mbakne keroog andan rega doya xa waronu kene xa waru changement fo ɗomu fene jeg no jom ne a kene jaɗat fop te jaɗat fop ndam ke waraluna parce que jom xane te xupu o njiriñ e faak jom faak liiro tegooge te a maya xa may bo may cent mille gara yo i mbudanigo cent mille to xane ka mayo gudel nda xane kuño ke mayo jom ne moƴo xees xane i kene koy ande ke waraluna wala jaɗataxam boog nde xa taxu champion jegate ndiki anda a ga leye seereer jogu njom mais ndiki i nga' te champion seereer ka taxna da xa taxu champion ke raar ndiki o seereer ah, njom de danaka ka gena te fen fop o mbaagu njom parce que njom fop ka mbi' no métier eetaan manaam seereer rek o maaf rooge mais ni njom xane métier oxa o bugangaan i njiriñ rek waaga jeg teen o njiriñ a waangi mi kaaga wa ndiki règlement fa ngas fe CNG xarule ka ten a refa xew na ndiiki xar leyo ten o dara ah. a ah, balance a ah, balance ale pesé ne pir ke da ka yaqa jom jom jom a moƴ a fel nene to o balance i nga eran o balance xaɗi jom nonga o balance xa ɓaat no jom wala xa ka wañ jom me ɓaate jom dara no ke ga'ma ɓoog o balance ɓaate no jom dara pir ke limité koy bind le ndiiki and naye ka leyele 64 litres waage tret no passé xa leyo limite turke ah kene ka janjo mo ini ta banyayo i ka janjo mo yengne banyo or waka drapo adak o bugo yo drapo lu rep na bindu o yal ko na bindu ana lagi jode borde na ka jare da ko drapo ling waga bindu 120 120 leader wala 100 leader mais abuga war catégorie dik catégorie no na o plus de 100 ñu ne me kambe kamen kamaro njalik roga fe daga kamaro mais ga i jom sate fa bo 4 heures du matin wala 3 heures et demi réglement fe xaƴe refe leŋ ne leŋ o mais caate ka fo Dakar ka laaco wuute parce que Dakar waaga ɓafit mene waaga ɓafit mene wala ɓafit Keur Massar fuudiin mene a ƴeen o ne waange ñako arranger waaga xaada bo ɗatale comme agresseur ke fo lakas fo lakas ke i min saax le Dakar fo koɓala ka refe leŋ ko fi'ano jom bo sept xalaat tiro dara ka i nga'a meke jom na wek e to a jeg caate ka maadna ɓaka jom bo hay to kam fooge saison fe a nga leel avec weke rek jom def ak senegal to ka jega lamine mais ka i nga jom ne ka wega mene Dakar to ko bala jek caate ka na mbaɗa ɓaka jom bo xaye xa waralu kaga ware waago ref de jom de moom leŋo rek parce que sen sen jere rek sen sen bo CNG sen sen Dakar te waxju sen ke fop kam fooge a weganga jom warate go fak peut être ka ci'ana den wala parce que boo xam ne adunum ine meke terengal ge xaye jak saxo yit a tegan de e, kima ka lum e, i ngar meke koy e, mbida kam amateur men champion fa maak fa and naye yakarame kam awre ba xa njom yal mbinam fiya fo mam kene o fo nam ne tv maxey simna apa? a paax mene kene de mbay bay sas le moƴo andel nam moƴo andene boy me lax sas boy me lax a jega gon lakas wala bul faale rek wala nam wala sas lingeer lax a jaw sandok ma xa waru tewa ref mene xaye xa waru tewa yof mene njom rek bug njom rek njom a ref ka andoona yee ka ref ko euh, kene in rek bug bug a ref fo in i kaga rek tax i ngar mene i mbaga ndax ko ɗega billet ndax ɗegiro a billet a billet job moom retanga kam ɗega billet maaga iwa ndiki nuun xa warolu nuun ancien champion ke façon mbegal fop nu mbegala no amateur ke ku refena nu mbi'an meke so nu ngaranga no njom promoteur fe ɗegnora nuun a billet kaga pour xaro a in kaga ina et daxa a jaxi sax kene moom ware waago ref normalement ini ancien ke andona ye ancien gloire ke ina ben aso soɓ'anga ye ka mbar u leya aji saxe nuun a jega kanu mbarna coɗit pour nu ngaranga nu ya atiketa la andona ye nu ngara tanu njom nu ndokkate no njom kaga sax inda ndakoran da anda tam a jeg ka njom gar gar gar gar no buntu hotel maga mba o dépasser en mba o leel ka aji fel kirang a jega wa kaga tatam im garanga njom cungimo leyele roki wa kiro a jega com ka am ne garanga maga Aji jega wa ka comprendre ka mala be gar rok kiro nda mi moom nga garanga kam gabi biyes gar mof seetan ke pour ma seetan i o nanga fuda njom na xaye xar yega par rapport fo fak yo ya mavrel njom na ga na fak fo njom na xaye ndax nga def njom na mom oxu na fo generation mo rek na nga mo yega mayu ak que ceresa na fa do ko talu refna léeg-léeg moofo bi sax bo akate mo dam yam andam na njoma fiano kin kata copki yak koy in kay ñowna wa i ndef na itam fokata ñowna yo wene tam fokata ñowna yo rek wa waga ref yam génération nu garna asura nga rek olam tanga nga lay in moƴ mbaag men job job jegate fop na la kene nda ñom mom a jega wa andona ye bo ndiik a saqa Asa job a aussi tam ke mom a nga no ñom rek o o xene mom o so xey i i ndege doga xarañ tafa fa fo ñomale ten mam ga o xoox na koor axe xaye mam ga o xooxof comme lay goor le kama den a janga xam na ñom xa booy a booy axe ndiiki moom ñom le tam maam reno ndiiki fo ñom in a laaca feedoro ndik parce que soɓo kiin songin to daam kino we in saɗuna ndiiki maye a jega koy wa maag ten com leng leng ga o goor lena lele usine technique waaga waaga ñom kete fela xam lool nana a jega lakas fo lakas wa ndefna kam fe aussi o goole leyne CFA o goor ino a waaga njom trop kete maaf ren moom content naam no ten aussi fata continuer ba décourager mais ndiki in i nga a ten muf wargal i nga a te o kolin i nga a ten noojo i nga a xa taxu bo xa kore kene fop maaga tarano ndiki kene koy ke moƴuna waral te refu ye école ke surtout eh, écrit ke a boya xama yowe xaye woyen ndefreten no écrit maye to o buga ref jom ma na def xaye xano jabo jitel dirisel lalganel lele fi ne fi naga to ganga pir ke ndiki wena ngara takam com ke ndiki we anone, naye ka ngarata a yonoyo fo wa ando xana mbago leya dene mbiƴo na mbi nene maye a ɓedora ndiki fo yaga in ka go fo kiin kam ka yonogo togonu njom mbugo mbi'oyo tig saƴkino fi sa yamo ci ñof kete lo o tapi na pir ke ndikoy on jega mo akora mo anone jege dal wa encadre na men ala dene mbiƴone na mbiƴone nda yo men nda men ndax même amada roktid o mbap wala kilot wala pantalon no njom ha kaga mom so fi la gawe na dan tige ko njom ne kaga mom wa CNG den bar ngenu ten wina sutido yo ciosan imbe euro ko na men i kaga a aplikangano yo xal goyanga in yab gaano ndiki ando kata nga ndiki sa o leng sa kata kilo kam wideta ala tam bai tuna ya mbay tano yo anando ki deta itam ozi kam jomne anto lay nene na kuvate na tusan rokit katuro ana bahas no yo binde pirke limite na kat bin kalo yo ten yam bu jek jek e limite ka pirke bino ko pirke bak tak tirage ko kumase i kaga kaga mum kaya den amo vole na minya focom ke minna rek focom ke na yengel ten tan biya kaga yam jomne ndiki mom ayenga ayenga la anona e normalement ambara bara ɓato er taxin heure ke da commencer wiine mbago telo le kan wena leya ñoom ñaal pour le ñaal ne jegin a etaan pour te numtooxiid parce que jega association na ande ka ñe'e no ñoom pour ñoom ñaal ne ɓaato numtooxiid mi de maaga d'accord am ta d'accord am taga de parce que com ka saate fa o kiin waagate fuun maaga njom ndiki prefak wala xano inoranga euh, maaga ay 4 heures du matin inor ka maaga tin no mbin wa ndiiki xa waralu kaaga parce que a refanga Dakar jege bo so com ka saate fa a minuit amba 4 heures du matin wala 3 heures et demie hada huka ga hayra reglement ka defelen waga kay kaga mom wa anone de anone tom ke maga sade ba den beru calel den ambi aga cal na layna ku garana er nangam imbare an jaflen soma mi kanoyo pirkando kit an amateur ke telongori waga den bar appliquer kaga a appliquer ngano yo kaga xana xaj ndiga poano koy poane parce que niki euh arfa nga deux catégories trois catégories catégorie à balance à poser yo alors no poane to ken ma jek Jom mom la tat anu na kayit rek fopa yaqu ak kayit mom a jega mayu kada anu ne mom a xanu njom nda bat mbir tiwale so gaga anu ando xere tiwale so raw gadu o gaga na anu raw gadu yo anday kene xewna mena xaye wa bo rek na a jega wa wene kangara na tit den na ba jeg men sans ha ko koy normalement ken a war a de detax na ando ya, naye a mbagano mbago detkano yo a jega com pelu ka na mbarna koy eta dem ora rek taw imbagro njega parce que poids ke ya, yo okin awa ganyo ko juk poids taw po hana dole poids dépendre no njom dole no hije ref mi wak amo poids na inda mi ranga o ane bi upiramo dole parce que mi kam fanyo gu poids aga bo jik ka na ay sana ngam poids ka jara anu no xam njufa ñaal sax pour poids esa fudu ndax mbago jik xoxes ka bo yaga niki ka yogo ñango yo poids kay waran no kene koy cale ke da ñala no mago de ten fa xeeru jege wa dirisa nenen jege wa lene ndayo mene bitiyo nene bitiyo nana kene waralu kene tata tandel telo jega poids i drapeau chef de l'état adaba go open jegoge par par par région niki tel fata par équipe par équipe nene d'accord atina d'accord roten par équipe eh. bondik sa awaga a jega hina drapeau chef de l'état de passé na a jega lakas kaate ɓaata ɓekiidoyo e koy open fe kaaga tam i content no kaaga faaxa ka moƴo fel nan rek tiye moom nu ta moƴo mayta rek a moƴo xumta rek wiin we moƴo content no kaaga fata ɓaato ɗeeta xino ye rek na moƴna mosif one andoona yee nen amateur ke moƴ mbugoyo rek a mbi'an na den kaaga moom i d'accord ata degel xale ka mbind Alan TV content na rek ziara nuun a nunin ko